arène nationale bu Pikine fukk ak juróom-benn athlètes sénégalais yi jamono ji nag pare nañ ngir relever défi ci seen diggante ak athlètes yi nga xamante ni ràññee nañ leen ci àdduna bi yëpp naka noonu préparer li nga xamante ni bi moom moo di Jeux olympiques de la jeunesse ñu fas yéene ko amalee ci réewu Sénégal ci atum 2026. jërëjëf Jibril Niang ñu ngi lay sant di gëlëm gërëm mbokki kon ci foofule ci la ñuy tàbbi ak yéen ci ñaar lu xaju xibaar yi benn ponk la te la. dal leen ak jàmm parti pastef wonewaat pastef am ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci maître Abdoulaye Tall mi yor kàdduk pastef Walf Quotidien ne Ousmane Sonko ay naataangoom gësamaat nañu kenn bu mu xooli feneen te lu ñeel xewum ndaw ñi daanaka dara du ca sotti maître Abdoulaye Tall ne gannaaw juróom-ñeenti at ak lu teg ci bopp réew mi munoo xëy rek ne ndaw ñi xëy yangoog loole xel munu ko nangu waa pastef ne duñu seetaan benn yoon ku bëgg a wala ku bëgg a réew mi wala boog bëgg fee salfaañe démocratie Walf Quotidien laaj ko ci lu lu aju ci dossier Adji Sarr ne Adji Sarr mile ay nit a ko ngemb ay nit ne ci ginnaawam ngir gàkkal derub Ousmane Sonko Walf Quotidien Ousmane Sonko moomule mun nañ ko xaar ci élection yi ñu jëm maître Abdoulaye Tall ne amul lenn lu mun a xañ Ousmane Sonko wala mun ko gàllankoor mu bokk ci yooyu la wote Sud Quotidien daanaka élection locale yegg si na yéen cabinet primaire lay doon laata élection législative 2022 ci élection locale yi ca la ñu programme di jàngalekat ya université Cheikh Anta Diop jàpp ne ak lu fi jot a xew rawatina fitna gi woon ci weeru mars gi ñu weesu am na lu bari ci lu mu xañ njiitu mi Macky Sall yéene kaa bi tey ma wax leen diggante njiitu mi Macky ak askan wi jeex na tàkk afaga tàkk kóolute amatu fa cofeel amatu fa yéene kaa bi tax askan wi tàmbale woon ginnaaw njiitu mi Macky bokk na ci lu bari li fi nguur gi digee te jëfewu ko ba ko militant lañu maanaam ñoo xamante ne askan wi waxatuñu lu jëm ci ñoom soxlaatuñ leen ñoom lañ ji turam yi Macky Sall fab tey fàtte ña ko daroon démb yéene kaabi di critique ne ba tey saafara amagul ci ñi caabi féete ginnaaw ci fitna yawoon ci weeru mars gi ñu weesu yéene kaabi ne toll na ci fanweeri doomi aadama yoo xamante ba léegi ñanga ndungu siin amaguñu afiya ku jéeg politique bi jóg ñaxtu ne jot na ji turam Macky Sall libéré otage yi yéene kaabi di turbine ne gaaw leen a gaaw gelawaay ku gis Serigne Baye mi signalé ko yéene kaabi ne wi ne ci coono ndox amatul moo xam ca ñaari tali Kër Massar Damel Wokam Parcelles Assainies Grand Yoff Patte d'Oie Derklé Rufisque ak Yëmbal daanaka fépp ci Ndakaaru ca mbooro ñàkkum ndox mu tar ñu ngi ko fay joytu ndangal ma naka noonu ba ci Île du Saloum Kédougou Kidira ba ca Bakel askan waa nga yenu seen biteel ak seen paan ak siwo yu diwul ndox seen ñaxtu benn la ndox la ñu bëgg te robinet munagul xelli te booba léegi kenn déggul Serigne Baye Thiam wax ci la tribune ne tax askan ñu Mbaye Thiam na nga ko siiwal na nga ko feeñal mbete xale bu réer génekabi di les école nguur gi xaj na étranger yi ngir ñu jot ci wàllu tonni mbalit mi bu ñu sukkandiko ci Abdoulaye Sow jëru ngi ñu denk wàllu urbanisme xam la ne kuy wàlliyaan sa dëkkategut ne duñ fi bàyyi mukk li fi réew mi moom ba noppi bëgg a jéegaani Abdoulaye Sow ne xamul te jëflantewul benn yoon ak ay Sri Lankais te dafa jaaduwul dafa yéenuwul maana lii di tonni mbalit mi ñu bugg ko fab jox ko waa bitim réew libération xëy wutaliwaat Linguère ak la fa tukkeegum ci enquête ba gannaaw musiba ga fa woon lu toll ci ñeenti ga yéene cabinet personnel de garde ba moom lañ ca joxoñ baaraamu tuuma ña yendu ca hôpital ba ak ña leen fa waroon a wutu ñoom lañ ca gisul ba tax na bi làkk gi amee amul kenn ku ca jéem leen yéene cabinet sursaane yooyu le liir te faatu ca làkk ga seen waajur ba tey seen rongoñ feragul Maymuna Sow ma ngay jooy doomam bu jigéen gam ca ñàkk nijaayam di Ada Kambel jot naa fippu ci biir yéene caabi xam le ne ca saal ga liir ya ne woon amutoon benn agent de garde kenn newu fa woon saal googee dañ ko tëjoon ràpp bennoo ne xale yi faatu ci anam yu doy waar Ada Kambel gis càggante am na fa yéen a kaabi la témoin ne ñeenti liir la woon ñoo ñàkkoon seen bakkan ci góogule làkk waaye lim ga yokku na bu ñu sukkandikoo ca bilan ba ca tukkee bees yéen a kaabi ne ñaari liir ya ca amoon gaañu-gaañu te ñu yóbbu woon leen ca hôpital bu Touba ñoom ñaar ñooñu le mujjee nañu ñàkk seen bakkan le témoin ne lim ba yegg na ci juróom benn liir yu faatu ci góogule làkk ca hôpital Magatte Lô banne ca Linguère yéen a kaabi di la Quotidien ba tey njaw a ngi wee di desi xambin ci garab yu bon yi saafara amagu ca yéen a kaabi ne gannaaw lim ci yooyu le garab ya ñu teg loxo ca Patte loxo yeneen buñ ko xaymaa ci koppar toll na ci juróom-ñaar fukki millions ak juróom ci ay faux médicament tax nañu bari wone seen jaaxle ne bile mbir ana kañ lay jeex le quotidien gis ne métit la gu amagul saafara réew mi quotidien ne faux médicament yaa ngoog juraat na fi coow am na yeneen yu duwaan tegaat bees loxo daal dinañ ko xayma ci koppar toll na ci fanweeri millions ak juróom-ñett réew mi quotidien ne buñ ko xoolee ci diruk ñaari at luñ fi xayma ci koppar te tukkee ci faux médicament toll na ci ñetti milliards yéene kaabi di la soleil ne ca xolu Casamance jàmm tàmbale na fa dellusiwaat rawatina ca dëkk bi di askan wa tàmbale nañ fa dëkkaat soobuwaat nañu ci mbéyum kaane ga ma ñu ne koom lay jur ca dëkk ba